ayca jërëjëf euh, mbokk yi di kontaan bu baax a baax a baax mbokk yi tey dañoo am mbégte mbegte gu doy waar goo xamante ne dañoo jóge ndakaaru ñëw ba fi nga xamante ni nag moo di Fuuta seet si kilifa gu mag euh, kilifa goo xamante ne dootuñu ko présenté askan bi di Thierno Boubacar Diallo ñaankatu yàlla bi nga xamante ne saa su ne euh, ci ajo ak yattu yi nga xamante ne moom la askan bi di bëgg ci lay taxaw waaye cheikh bi tey damaa ñëw sama yaram daw ma ñëw gan fekk fi ay kilifa yu mag yoo xamante ni yaakaar naa ne àdduna fu ne nit bàyyeekoo na fi ñëw seet si jëmm ji nga xamante ni moo di Thierno Boubacar Diallo ma fekk fi ay teraanga ay fas nag oto sax gis naa ko fi nit yëkkati ko euh, jox la ko ndax lan xol bu sedd bi nga xamante ne jëflante nga moom ba mu am ko ci yow euh, du ma gën a wëyal suñu ay kaddu dama lay bàyyi rek nga nuyoog ñi nga xamante ne ñoo ñuy bàyyi xel euh, nuyu nañ la bu baax a baax a baax cheikh bi di la siyaare. asalaamaaleykum wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu di leen eh, sant di leen gërëm di leen wax bisimilah seen ñëw seen ñëw ci kër gi. Mm-hmm. di leen ci wax bisimilah. Mm-hmm. kontaan ci yéen ci mm-hmm. ñëw bi ngeen ñëw fii nii. bépp jullit ku bàyyi soxla am. ñëw seet si moromam jullit. kooku def na lu baax surtout yéen da ngeen di ñëw di wone kam-kam. di dimbali ay nit yu nga xamante ne dañoo nekk ci àll bi. ak nit yu nekk fii ci réew mi. Mhm. xamuñu fan la ñuy jooytoo seen seen méttit. Mhm. xamuñu fu ñuy dem ba seen soxla yi faju mhm. nga leen di jooy ñu leen ñuy jaar ci yéen. seen ndax seen aaju yi di faju ñuy jaar ci yéen nga nekk sabab bi. ñu mun a jot ci ñun. kon nag yéen te leen di ñaanal yàlla na leen yàlla fay. Mhm. maa ngi lay wax bisimilah. yaa ngi may wax bisimilah waaye tey kàddu yi nga xamante ni moom laa fi fekk ci laay dooree ndax damaa ñëw euh, ci li nga xamante ni euh, ñu bëri ci wàllum médecin hôpital dañu see tële yàlla may la ci ba nga xamante ni euh, retour bi ay turandoo la ci jigéen ñi nga xamante ne lenn rek nekkoon seen jafe-jafe muy wàllum ñàkkum doom ma ñoo fekk fi ñetti xale yoo xamante ne dañoo jël sa tur joxaat leen ko ndax it mbégte gi nga xamante ne ay waajuram am nañ ko ci yow wàllum ñàkkum am doom gi ci seex bi. man alhamdulilah rabbil alamin allah man tuddee nañ ma ba tuddee ma ay jigéen. Mhm. ci wàllum am doom. lu des li léegi ku am doom dama lay naan tudde ko yonanti bi tan bu ma tuddee. Mhm. wala nga tuddee ko suma maam wala suma sëriñ. aha ci wàllu am doom. Mhm. loolu dama la ci jokkal garanti budul deñ. yàlla moo yor garantie waaye sabab dafa am yàlla dafa ne nit boo jaaree ci lii. Mm-hmm. ma faj aajo bii nii bu ko yàlla waxee boo jaaree foofu yàlla day faj aajo boobu. Mm-hmm. moo waral noonu sababu fu yàlla wax nañu jaar. Mm-hmm. foofu lay jaar di faj aajo yi moo waral damay jox nit ñi garantie. man ci wàllum nga am doom juróom-ñeenti fan. juróom-ñeenti fan. loolu laay jox garantie. Mm-hmm. bu dee nekk nga ak sa soxna. Mm-hmm. wala sa soxna bu nekkee ak borom këram. lu muy naan la lu muy sangoo la wala lu muy tàkk. déedéet wala lu mu am doom amul lu ñuy naan amul lu ñuy sangoo. Mm-hmm. su ma seetee ma xam ne ne lii lii moo ko jàpp. ci suma bi lay toog ma faj ko. bu nekkee li nga xam te ne lu ñu war a ma def nga sangu man du ma jox benn nit garab bu ñuy naan. man amul suma benn garab bu ñuy naan. da ngay lu des lii suma kurus bi laa la koy wirdal ma jëlal la garanti ma nee la demal juróom-ñeenti fan bu soobee suñu borom mhm. bu dee yaay nga sa borom kër di nga jàpp ëmb mhm. amul benn mbindeef bu ko mën a dindi mhm. ngati dama lay joxat garanti su ma lay liggéeyal du ma la laaj dërëm dama lay liggéeyal bu nga gis nga doog a ma fay loolu xam-xam bu ñu yàlla jagleel la xam-xam bu ñu yàlla dimbali la ci mën-mënam Mm-hmm. ak ci mbaaxam mm-hmm. dimbali nañu ñu ciy faj aajo yu bëri mm-hmm. aha bisimilah macha allah muy kàddu yu am solo yoo xamante ne ba tey rek ñu ngi ko doore suñu waxtaan ak Thierno Boubacar Diallo waaye leneen nit li nga xamante ne saa su ne mbégte lay doon ci askan bi ndax it liggéey bi nga koy liggéey muy euh, noobu jooni jooni gu doy waar gi nga xamante ne sëriñ bi yaa ngi koy liggéey ci askan bi te danga naan teel sa xaalis ba gis soogee ñëw fay si ci nopp gi waaw waaye ba tey cheikh bi li nga xamante ni yaakaar naa ni askan bi bokk na seeni i jafe-jafe mu di wàllum nopp nopp gu doy waar gi nga xamante ne nopp bu jóoni jooni la ko askan bi tuddee ndax yàgg-yàgg eh, da nga ciy teg bët waaye li gën a doy waar ci nopp googu cerno danaan la teel sa alal soxlaw ma ba nga tegal sa bët nga soogee ñoo fay waaw ci wàllum nopp bi nopp loolu ñetti fan la mm-hmm. dama la ciy jox garanti ma liggéeyal la boo nga gis nga doog a fay sa dërëm doo ma ko jox da ngay téye sa mm-hmm. alal ma liggéeyal boo nga gis nga fay hmm? na fekk noon jabar ak jëkkër mm-hmm. wala ku bugg sëy ku bugg ki nga nekkal bu dee dëgg mu nekk seen diggante mm-hmm. wala nga nekk ci bërëb ngay liggéey ñu torokal la foofu dindi la fa wala ñu bugg laa wàccee ci bërëb ku la kilifa ku la féete ci kaw kii mm-hmm. dafa laa bugg dindi ci béréb bi te sa sa njaboot yow lañu yaakaar dama la fay samp ma nootal la bu soobee yàlla boo ak keroog ngay génne àddina yow yaay bëgg a bàyyi nga bàyyi waaye doo ci dellu ginnaaw amul nit ki du la mun a ne bàyyil wàllum jëkkër ak jabar su ma la ci fasalee sa soxna. boo génnoon adduna du am beneen borom kër. Hmm? bu ma la ci fasalee sa borom kër boo noonu adduna du am beneen soxna. Hmm. loolu dama la koy jëlal garanti ma liggéey la ci ñetti fan ma liggéey la ba nga gis nga doog a fay. dama hmm. ci soxla noonu bu ma koy liggéey na fekk nit ki. xam nga fu na xam fi nga nekk wala yor na sa téléphone ngati bu ma ko defee nit ki dina tàgguloog jàmm bu la gisul wala déggu mhm. du mun a nekk ak jàmm te loo soxla ci moom ci àddina mhm. dafa la koy jox moo waral bugguma ci di ci defal nit ci caakaan ngati am na ñi nga xam te mu ngi leen ci defal ñuy laaj nit ki alalam di ko di ko di ko di ko di ko sonnal mhm. wala di ko def ay jëf yu bon nga ti nit ki day tàggaloog sakam loo ko soxla ci àddina mhm. nga laaj ko mhm. dina la ko defal ci nopp bi moo tax du ci def caakaan ci li nga xam te ne ay kale sëy laa koy def wala ci liggéey bi nga xam te ne ay kilifa dañ koy faral di dégg ñu bëri dañu naan euh, nopp nit ku weex day doon jafe-jafe ci yomb waaye ñu bëri euh, seen mbégte mooy Cheikh Thierno Boubacar nit ku ñuul nit ku weex euh, kum ci liggéeyal nga kon bani aadama kullum bani aadama bu nekkee nit ki asamaan bi mu ngi lay tiim. Mm. xaw ma de ko asamaan tiimul. Mm-hmm. bu dee dem nga noon su asamaan amul. Mm. munu ma la nopp waaye bu dee bi asamaan mu ngi lay tiim. li mm-hmm. may liggéey. Mm-hmm. dama lay jàpp nekkal ku la neex noonu yaa xam jullit nga. yaa am mm. keefeer nga yaa xam nit ku ñuul nga yaa xam nit ku weex nga yaa am chrétien nga koo munta nekk ci àddina su ma la liggéeyee dama lay jàpp ci nopp ñetti fan la bu weesoo ñetti fan yi fay dërëm du macha allah dama lay liggéey ba nga gis nga fay. macha allah muy lu am solo mbokk yi ba tey yéen ñi bëgg a jokkoo ak Thierno Boubacar Diallo numéro téléphone baa ngi noonu ci suufu ecran bi waaye cheikh bi nag euh, dafa am loo xamante ne nag dama naan solution la euh, bi nga xamante ne da nga ko indi ci li biir néegu sëy ndax it jafe-jafe demoon na ba léegi sëy yi di yëngu wala sëy yi di tas waaye solution nga indi euh, ci faj goo xamante ne da ngay tàqalikook moom sa giiru dund ci wàllum néew kàttan. Mhm, ci wàllum néew kattan nit ki bu nekkee sa kattan baaxul. Mhm. doo mun a sa kattan dafa dem ba amatoo ci yaakaar. Mm-hmm. ba yow amatoo benn kattan ci àddina xëy na fekk nga am juróom-ñeenti fukk dama lay faj boo nga wér boo bis biis bi ngay génn àddina hmm. doo doo jàmm jàmbat kattan loolu dama la ci liggéeyal ci juróom-ñeenti fan waaye guddi bi ma ko tàmbalee di ko liggéey hmm. guddi boobu noonu doo nelaw guddi boobu ngay tàmbalee ba ges keroog ngay génn àddina di nga ñàkk kattan hmm? dama la koy liggéeyal ci loolu ci jasit laa koy liggéey noora noor ci noor laa koy def jasit su ma ko ci defee moom moo nekk bopp jasit bi ngay gis noonu mhm. ci moom laa koy def su ma ko mhm. defee bu soobee yàlla ma liggéey ci mhm. ba keroog bi ngay génn àddina ci wàllum kattan doo doo jambat kattan la ilaha illallah ah, ah, boo ko génn àdduna doo jambat kattan gis nga ay kilifaay mag ñu ngi xam te ne am nañu ay ay ay ay juróom fukk at ay juróom ñeent fukk at dañuy am ay doom bu léegi Mm-hmm. kattan loolu noonu nit ku la nekk nit màgg na kattanam dem na mm-hmm. déedéet wér gu yaram moom moo fa nekkul mm-hmm. nit mun nga dund ba te ànd ak sa kattan loolu du ci dara loolu du ci dara macha allah waaye aussi ñi nga xamante ni tamit saa ne dañu koy bëgg di gis ci li nga xamante ni moo di wàllum samp cheikh bi samp nekk na loo xamante ne bëri na ay nit ñoo xamante ni tey fekk naa leen fi ci ay kilifa ba nga leen di teg fii nga xamante ne fi lañ nekk doonuñu woon dara ci Sénégal wàllum samp Thierno Boubacar Diallo résultat yi nga ciy def la sampa ku nit ku dem ba ñàkk yaakaar laa ci soxla hmm? am na ay nit nga gis nga naan man jàng naa jàng naa dinga gis ku jàng am xam-xam mu ëpp ñëpp xam-xam nga kii ki kii ku la giilif xam nga ne moo yaa ko ëpp xam-xam téeméeri yoon la man dama lay samp bu ma la sampee bu soobee yàlla si béréb bi ma lay sampa ci dërëm laa koy def dërëm dërëm ngay wut Mm-hmm. loolu ci dërëm laa koy def bu ma defee bu ma ko defee ci dërëm bi. Mm-hmm. ma liggéey li ma ci liggéey ma boole ko ci. ma nee la jëlal ak béjjén bii nii nga suulul ko. Mm-hmm. boo bis keroog ngay génn àddina. dootoo nekk fi xam ne fu suufe fu kawe ngay nekk. la ilaha illallah. dootoo nekk fu suufe ku ñëw di nga ànd ak moom. te da ngay yilif kenn dootul yilif da ngay yilifaate tam. Hmm? ci kawe rek ngay nekk ba bis bi ngay génn àddina hmm. da ngay yilifaat ci kaw fu kawe ngay nekk hmm, waxuma la noonu da nga am xam-xam bi waxuma la amoo xam-xam bi soxluwuma nga am xam-xam bi soxluwuma nga ñàkk xam-xam bi mhm. su ma lay liggéeyal man dama lay liggéeyal nga am lu ëpp sa njort mhm. nga yilif ñi nga xam te ñoo ëpp xam-xam mhm. dama la koy defal nga gis ko koy defal mu gis euh, ci li nga xamante ne tey damaa ñëw fekk nga euh, recevoir ay gan yoo xamante ne euh, ku ci nekk jafe-jafe gi mu am ci àddunaam wala li mu bëgg ci àddunaam mooy génn réew mi tukki dem fa nga xamante ne moo di bitim réew waaye ñoo ñu jox la passeport bi seex bi damaa gis nga dajale passeport yëpp rëpp génnee lu weex loo xamante ni pittax la day naaw misaal bi loolu lan lay wundu sëriñ bi. ah wàllum pittax bi loolu ci tukki la. Mhm. nit ku am yaakaar ci wàllum tukki. nga tukki jafe la. wala fi ngay dem wóolu woo ko. xamoo mhm. lan nga fay fekk. wala nga yoon bi ngay dem yoon bi dafa bari gàllankoor. Mhm. man demal la ci liggéeyal ci pitak bi nii. ma jëlal la ci garanti fi ngay dem doo fa doo fa génnee àdduna. Hmm? doo fa dee. Mm-hmm. doo fa am gallankoor doo fa buñ duñ la fa tëj kaso mm-hmm. doo fa am tolof tolof boo bis bi ngay ñibbisi te bu ma la ci koolalee dinaa la wax demal te bu soobee yàlla boo demee boo yegg. Mm-hmm. sa wërsëg dina la fa fekk te di nga fa am alal bu bëri. yàlla dina la fa teral. ci pitax bi ngay def li ngay liggéey bi laa koy liggéey. waaw su koy liggéeyal boo jëlal la ko garanti mook la nga dem. bu soobee boo demee doo fa am benn gàllankoor doo fa am tolof tolof. la waaye tamit euh, amit na leneen loo xamante nii tamit cheikh bi bëgg naa tamit ñu taxaw ci loolu ndax it fa ngay gisee wala fa ngay waxee wala fa ngay seetee euh, nit dafa seeteewul ci àdduna Thierno Boubacar dalay wax ba boo amul fit sax da ngay jug génn ba ko ndax li nga xamante ne moom ngay dégg ci ay gémminam wàllum seet ak listixaar seex bi euh, suñu borom cëral na la ci si wàllum seet bi man nit dama lay wax lu nekk sa poos mhm. dama lay wax tel moo nekk sa poos nit dag may woo téléphone ma wax la ba wax la sa tur. Mm-hmm. wax la sa tur yaay wax la sa at wax la fi nga taxaw. Mm-hmm. ci wàllum seet. jigéen bu bëgg am borom kër. Mm-hmm. dinaa la wax sa jëkkër ku xonk lay doon. wala ku ñuul lay doon. ku gàtt la wala ku njool la. mooy wax la kii ku am kaalis la wala amul kaalis ku lay takk di ngeen yàgg wala doo leen yàgg. seen fan yi dina ànd wala du ànd di ngeen guddandoo fan wala doo leen guddandoo fan. ku soxla jëkkër juróom-ñeenti fan la. Hmm? yàlla na fekk musoo fay bu am bu am bu am juróom fukki at. Mhm. juróom-ñeenti fan nga am borom kër te yow yaay tànn. waxuma ngam kenn woo ma waxuma ngati du ma fayee ko kenn. Mhm. dama lay liggéeyal bu nga gis nga doo ko fay. si mhm. juróom-ñeenti fan ma jëlal la garanti am borom kër. man dama koy liggéey. ñu ma koy jëfalante kam nañu ko. ci warugal bu ñu lay indil ci nga may génneel bi ñu hmm? waaw ci moom ci warugal boobu lay génn. dama lay liggéeyal ba nga am borom kër. ci bu ñu lay indil. Mhm. ci nga may génneel xaalis bi. Euh, ci wàllum euh, ñi nga xamante ne dañoo bëgg di jot Thierno Boubacar Diallo ndax it ñun léeg-léeg sax dañuy sonn ci yenn appels yi euh, jox leen ñu numéro sëriñ bi wala jox leen ñu sëriñ bi dañoo bëgg a dégganteeg ñoom xam naa dañuy jaar ci loolu rek ñun pour wax leen ne ay na jafe-jafe ak liggéey bi mooy faral léeg-léeg seex bi du mën yenn yi. waaye ci yooyu langa ci wax askan bi nga xamante ne seen yaakaar lépp dañu ko bëgg teg ci Thierno Boubacar ngir gisee moom wala ñu jot ko. xam nga liggéey dafa am lu mu àndalul. kati mm-hmm. faj soxla dafa nekk lu yombul. Mm-hmm. nit ñi yaakaar la. Mm-hmm. da leen di fajal seen soxla. dafa nekk lu yomba. moo waral tëju bi moo ko waral. li may tëju dafa bari. li may nekk ci kuruus bi nekk ci liggéey yi. ngati juróom-ñeenti nit laay jël juróom-ñeenti fan bu nekk. su nit ñi ku ci munta woo. su ma xasee jël juróom-ñeenti nit ñooñu. Mhm. ci juróom-ñeenti fan yi du ma jëlaat kenn su dul juróom-ñeenti nit yu ma jël ñooñu. Mhm. ma faj seen soxla. Mhm. ci ñooñu tan laay nekk ba faj seen soxla ngati yaakaar moo fort. te ku ma jox sa kaddu ba ma wax la waaw. damay faj sa soxla. ngati balaa may jël sa kaddu. balaa ma lay wax waaw. foog ma seet ba ma xam ne li ma lay wax waaw mhm. luy am la wala du am mhm. moo war a balaa ma lay wax waaw mhm. damay leer ne mun naa faj sa soxla te bu ma la waxee waaw xamal ne damay faj sa soxla te yàlla dina faj sa soxla aa macha allah muy lu ama am solo ba tey rek ci yéen ñi nga xamante ne yéen a bëgg a jokkoo ak moom numéro téléphone baa ngi noonu ci suufu écran bi waaye beneen jafe-jafe boo xamante ne cheikh bi euh, ci ni nga koy saafarale dafa dem ba léegi diaspora bi da nga ko téye ndax euh, ñi daan am jafe-jafe kayit léegi bi ndax it euh, fi mu nanga nu mu la ko waxee boo ko defee noonu du yàgg nga jot say kayit. man nit di def fukki at àll mosoo am kayit mu liggéeyal ci juróom-ñeenti fan nga am kayit. Hmm? am kayit. Hmm. ci juróom fan tuubaak bi dina woo jox la sa kayit. Hmm. xay bu kayit fii ci réew mi nga koy lu mu la jafe lu mu jafe lu mu jafe gi nga jot sa kayit. xam nga ku lay wax dama lay liggéeyal bu nga gis nga doog ma fay. kooku jubluwu ci dara su dul lu leer. lu ko waral noonu ma koy def taalibe yi dañoo sonn. Mm-hmm. am na ñu dem ba découragé gémmatuñu sëriñ loolu noonu noonu baaxul ci kër diini yi baaxul ci kër sëriñ si. Mm-hmm. man dama bokk ci kër bi nga xamante ne xamuñu dara ci àdduna su dul wàllum sëriñ. Mm-hmm. ñun sëriñ jàngale mbinda sunguf loolu lañ kam suñu tool la du ma nangu ku yàq suñu tool moo waral man. ma jël garanti ma ne ku ma liggéeyal dama leen liggéeyal ba nga gis nga doog a fay. Hmm. lan moo ko waral nit bu ko sa tool mu yàqu moo waral damay jëlal nit ñi garanti fàtte seen soxla xamal leen sëriñ dafa am. Hmm. moo waral loolu. waaw damay xamal nit ñi sëriñ dafa am. Hmm. da ngay tam xanaa yow yaay dajal ku ku ku munul liggéeyam mhm. walla ku nangul sonn ci liggéeyam mhm. ngati boo nangul sonn si sa liggéey mhm. li nga ci wër li doo ko am waaw mun nga daje ki nga xamante ne nangul sonn ci liggéeyam mu bañ a fàtte aajo waaye boo sëriñ boo nangee sonn yàlla fajal la aajo bi yàlla fajal la aajo bi euh, Thierno Boubacar duñu toog ak yow te duñu wax ci li nga xamante ni mooy le premier janvier ndax le 5 novembre da nga ñu waxoon loo xamante ne ba ñu ci yeggee moom laa njëkk seetlu mooy danga nga ne ma Modou Lo Ama Baldé ku takk lu vert moom moom làmb ji ñu yegg gis Modou takk ci loxo ñaar yu verte yàlla may ko ndam le mhm. li Sénégal yëpp di xaar mooy Modou Lo Boy Niang. waaw loolu ci wàllam làmba. Mhm. ñoo ñëpp ay taalibe lañu. Mhm. dañu leen di ñaanal. ku ci yàlla dimbali tan mu am ndam bi. yàlla ndam bi sedd ci moom. nga ci ay kilifa woo nañ ma ci làmba bu jàll bi nee ma bi dimbali ñu bul joxe kuy daan. Mhm. ngati boo waxee loolu kam nañu ki nga wax mooy daan. Mhm. waaye bul jokewaat loolu. ma ne ko incha allahu rabbi ngati da ngeen di daje tan ma nekk ci kurus bi. Mhm. am tàngoor bi fu mu yegg ci man moo wax. waaye damay ñaanal yàlla képp ku ci am ndam. yàlla ndam bi sedd ci yow. ci wàllam réew bi kuy nekk président kooku ñëw na ba toog fi jàkkaarloo man samp ko suma taalibe maam la. yàlla def na ko. Mm. loolu kenn mënutu dara loolu am na. Mm-hmm. su ma taalibe maam la toog na fii suma kanam samp naa ko. Mm-hmm. suñu mbokk la. Mm-hmm. waaw loolu moom lu am la. Euh, li ma bëggoon a laaj euh, maa ci teg sama bët waaye foog ma wax ci ak yow ndax it euh, li nga xamante ni mooy yenn teraanga yi ma fekk ci kër gi wàllum oto wàllum nag. fas bëri na te ci lépp dara jógew ci sa poos taalibe ñoo ko indi ñëw di la ko jox lu war a loolu sëriñ bi waaw loolu noonu taalibe yi samay taalibe lañu yaakaar bu ñu am ci man ak seen xol bu sedd bu mu sedd ci man mhm. ngati nit boo ko fajalee soxla mu kontaan am na sant yàlla waaye moom tamit da lay bëgg a bégal waaye man lu may bégal lii nekkul ci ci alal mhm. man lu luy seddal suma xol ma xam ne suma xol sedd na mhm. mooy nga jëkkati sa téléphone nga woom nga ne sëriñ bi faj nga sama aju boobu ne ci an buukar suma aju faju na naa ci yow loolu mooy seddal suma kol nga ti ñaan naa yàlla képp ku ñëw ci man. xolam mhm. sedd. macha allah nekkul alal oto yi ngay gis ni yëpp. Mhm. kër bi ni ngay gis mu rafet yëpp. Mhm. lii alalu àdduna la ku nekk mun na ko am. waaye faj aajo. Mhm. ku ku nang ku jubóog sa borom rek moo ko mën a def. dañuy ñaan yàlla di jubóog suñu borom. amiin dañuy ñaan yàlla di yàgg di faj aajo. ku ñu ñaanal nañu ñaanal loolu. Mhm. te loolu rek mooy lu ñu soxla. Mhm. incha allahu rabbi incha allahu rabbi cheikh bi yaakaar naa ne kaddu yi am na solo loolu ci jotaay bi nga xamante ne seqoon nañu ko ak yow euh, waaye mbégte la ñuy am bu baax a baax a baax saa su ne di jóge Dakar ñëw ba fii nga xamante ni moo di Fuuta ndax bu ñu fi ñëwee njëriñ képp la ñu fiy jëlee waaye njëriñ képp rek la ñuy yóbbuwaat ci ñi nga xamante ni ñoo di askan wi nga xamante ne ñoo ñu bàyyi daal am naa mbégte bu baax a baax a baax ndax it euh, ñi nga xamante ne ñooy gan yi di la xaar bari nañ damay profité rek bàyyi la nga tàggatoo ñu daal di nuyoo sëriñ bi. waaw bisimilah jërë ngeen jëf alhamdulilahi rabbil alamina ñun ñëpp nuyu naa leen sant naa leen ci ñëw bi ngeen ñëw di woone xam-xam ngati nit ku taxaw mm-hmm. mu naan la man kam-kam laay woone ci kam-kam bi may woone mhm. ngam ku nekk muni ci njëriñu mhm. ku nekk mun ci gis boppam kooku noonu da koy ñaanal tan nga mhm. santa ko ngati loolu nekkul lu yomba dëgg la moo waral dama leen di ñaanal di leen sant yàlla na leen yàlla tegaat ci yoonu jàmm amin amin jara ngeen jëf jara jëf mbokk yi muy kantaan bu baax a baax a baax ci jàkkaarloo ak moom comme ni ñu ko waxee rek yéen ñi bëgg a jokkoo ak moom numéro yaa ngi noonu di loon jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf yoon loolu la bëri ñaare war war war continuer continuer